zakiran wa shakiran abad wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ni ñu ko baaxoo ànde ak ci ay bu jot di fàttalente ak yéen téereb sëriñ bi radiyallahu anhu bi mu tudde Munawwirus Sudur te suñu bind bi mujj ñu doon fàttalante ak yéen ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi def mu di dog boo xam ne daf koo jagleel li nga xam ne moo di ñaari nopp ak li nga xam ne noonu lañ ko war a sàmmee waaye ni mu doone xéewal ñu war cee topp suñu borom bi subhanahu wa tey suñu bindub tey mu ngi jëm ci dog bi nga xam ne sëriñ bi radiyallahu bu daf koo def jagleel ko li nga xam ne mooy ñaari gët mooy li wolof di tudde ay gët sëriñ bi di wax ne laa tanzur bul xool bilaay ayni ci sa bët maanaam dafa wax benn bët waaye sa ñaari bët yépp la jublu li shay'in ñeel dara xaruma joj xaraam na bal li fi ne wuddaha na nga ko damm na ko gëmm anhu walif lépp loo xam ne dafa xaraam takun kon da nga nekk muxtarima di ko ñu wormaal sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi wax ci bayit woowu ne na bul xool ci sa bët lenn loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko araamal waaye bul xool sax ci sa bët lenn loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko sib nee na li nga xam ne moo fi ne kay mooy sa bët yooyu nanga ko gëmm nanga ko damm na nga sa gis ci lépp loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf koo araamal lépp loo xool ba xam ne yàlla daf koo araamal wala yàlla sax daf koo sib nee na loolee na nga ci damm sa gis bul xool jëme ca loole ndax suñu borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfazu furujahum zalika azka inna allaha xabirum bima yasnaun yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na wax jullit ñi suñu borom bi subhanahu wa taala ni leen nañu damm seeni gis te it nañuy wattu seen pay maanaam nañuy sàmm seen pay nee na loolu de mooy li nga xam ne moom moo gën ci ñoom kon yow yonente bi saa sallam na nga jot di loolu julli ñi nee leen seen gis yi muy seen bët yi nañ koy euh, damm ci lépp loo xam ne lu araam la nañuy gëmm seeni bët ci lépp loo xam ne lu araam la lépp loo xam ne xool nañ ba xam ne lii yàlla daf koo araamal wala suñu borom bi subhanahu wa taala sax daf koo sib nee na na nga wax jullit ñi ne leen loolee bu ca seenu gis jëm Euh, loolu mu jagleel ko jullit ñi góor ñi waaye ni mu ko jagleele jullit ñu góor ñi noonu la ko jagleele itam jullit ñu jigéen ñi wa mu waxaat ba tey ne wa qul lil mu'minaati yaxdudna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna na na nga wax jullit ñu jigéen ñi itam ñi nga xam ne gëm nañ suñu borom subhanahu wa ni leen nañuy damm seenu gis ci lépp loo xam ne yàlla def ko sib wala mu araamal ko waaye nañuy moytandiku di wattu bu baax seen pay Euh, loolu mooy li nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala euh, tere na ko ñi nga xam ne ñooy jullit ñi euh, ci li nga xam ne mooy xéewalu bët gi nga xam ne moom la leen defal ndax ay bët xéewal gënu koo màgg li ciy firnde rek tey su fekkoon ne nit ki yàlla dafa def mu sëgg loolu dana ko gàllankoor ci ay mbir yu bëree bari ndax dana aajowoo fu mu bëgg a dem dañu koy wommat waaye dana aajowoo lu mu bëgg jël dañ koy yëkkati jox ko ndax bu ca mën a jubali jubali dem jëlal ko boppam yooyu yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne nit ki nga xam ne mooy gis yooyu yëpp dana ca mucc waaye it tey jii su fekkoon ne yàlla daf laa xañ xéewalug bët yooyu booy dox man ngaa dox ba tàbbi ci kàmb te doo yëg ne yaa ngi tàbbi ci kàmb man ngaa dox ba euh, dugg ci euh, euh, loo xam ne daf lay lor te doo xam ndax yaa ngi cay dugg kon ay bët xéewal gënu ko màgg suñu borom bi subhanahu wa taala defal ñu ko kon li ci war ab jullit mooy delloo ci suñu borom bi subhanahu wa taala ngërëm waaye delloo ko ci euh, euh, delloo ko ci euh, ak sant bu baax a baax waaye delloo ko ci jaajëfal te loolu nag na muy amee di li nga xam ne mooy gët yi nga ci xool lu mel ni alquranul karim di ko jàng wala nga ci xool li nga xam ne mooy ay salaatu ala nabi di ko di ko julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne mooy al isti ay istighfar yu ñu bind nga koy nga ko ciy xool wala lu mel di ci xool di jàng ab xam-xam nga xam ne mën naa dimbali nit ki yooyu yëpp nit ki war na cee farlu bu baax a baax euh, di ci góorgóorlu ngir lan ngir sante ko suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal nga xam ne moom la la defal ci bët yi waaye kon xéewal googu waroo koo jëfandikoo ngir di ci mooy yàlla ngir lan euh, li ci mel ni lan lu ci mel ni tey jii di ci xool ay euh, jaambur jigéen yoo xam ne yàlla dafa alaamal nga leen di xool di leen fixé wala nga ci xool ay bi di ko ngir bëgg koo sikkal yooyu yëpp taxutoon suñu borom bi subhaanahu wa taala ba bindal la bët yooyu bi mu koy bind daf ko bind ngir nga ko cee jaamu moom suñu borom bi bind ko ngir Euh, nga ko ci mooy waaye bindu ko ngir nga ci xool ayibi jàmbur di ko ayibal waaye bind ko itam ngir ci xool ay jigéen ñoo xam ne ay jàmbur lañ ci yow di bànneexu ci xool ga nga leen di xool yooyu yëpp ay bàkkaar lay juleen nit ki yoo xam ne war na ko moytandiku bu baax a baax a baax a baax kon moo tax sëriñ bi ne lépp loo xam ne xam nga ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo araamal nanga nga fexey ba bul ko xool ci say bët lu mu sax bul ko xool waxuma laa loo xam ne nag suñu borom subhanahu wa taala daf koo araamal yonente euh, bi di continuer di wax ba tey ne xad mana tere na ar rasulu yonente ba sallallahu alayhi fil ali wa walaahu yal na yàlla dolli ko xéewal dolli ko euh, dolli ko musal moom ak ñoñam ak képp koo xam ne yaa ngi xeeñtu aw yoonam moom yonente bi sallallahu alayhi wa ak képp koo xam ne yaa ngi xeeñtu yoonam woowu moom yonente bi sallallahu alayhi lan la yonente bi sallallahu sallam tere mu ne miin nazaratin ci ab xool ila saxifati axin jëm ci euh, téereb mbokk bi xayri isnihi ci lu dul digalam ijtanibhu nang ko teet yaa axi yow sama mbokk yonente bi sallallahu tere na sax nit ki jël téereb jàmbur ci boppam di xool te amu ci ndigal loo xam ne bàyyi ko na ci boroom mi nga xam ne moom moo ko jox euh, téere boobu kon loolu fa ñuy ñu yóbbuwaat rek dañuy yóbbuwaat ca la sëriñ ba doon wax naan laa tafaalu shay'an bi gayri iznin fal iznu sartun fi qabuli sha'ni bu leen def dara ci lu dul ndigal ndax ndigal moom mooy tax ñu mën a nangu jëf kon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wala sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi ñuy tere ñuy xool di jëm ci euh, euh, benn euh, téereb mbokk moo xam ne amoo ndigal ci xool ba nga xam ne moom ngay xool téereem boobee mooy waxit ba tey ne laa tanzuri bul xool addahra diirub jamono li maalil musli muslimi jëm ci alali jullit nazrata isa in xool xoolub yàq fa xubba na nga damm sa gis taslami kon nga mucc nee na euh, bul xool li nga xam ne moo di alali jullit xool boo xam ne daf ko yàq maanaam xool alali jullit ngir yéene ca xool boobee alal ja yàqu walla nga xool alali jullit ngir jublu ca xool boobee yàq alal ja yooyu yëpp lu araam la loo xam ne euh, sëriñ bi radiyallahu anhu mi nga ñu koy moytandikuloo ndax dafa am ñoo xam ne seeni bët dafa am tooke Euh, bu ñu xoolee euh, li nga xam ne mooy euh, alali jàmbur rek loola mën na caa jaaree alal jooja mën na caa jaare yàqu kon looloo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di di ñu tere ñuy xool li nga xam ne mooy alali jullit xoolu jublu ca xool googee yéene ca alalam joojee yàqu ne na kon lala war rek mooy na nga dam sa gis ndax boo dammee sa gis ca la sa mucc nekk mooy la muy waxaat ca nax ju rek di wax ne laysa sujaau allazi yaxmi fawaarisahu yowma tiaani isama xarbu tastailu lakin man gadda tarfan aw sana xadaman an ilmaasi fa zaaka alfaarisu albatal sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi wax foofu ne na ngeen xam ne jàmbaar de du mooy koo xam ne dafa mën a aar ay gawaram saa boo xamee ne ab xare am na ka nga xam ne moo mën a aar gawaram saa bu dëbbante ba maanaam saa bu jamante ba ak rayante ba tàngee ka nga xam ne moo mën a aar gawaram ba kenn du ko kenn du leen rey ka nga xam ne moo mën a aar ab armée ba kenn du mën a yëgsi ci ñoom nee na bu leen jàpp ne kooku mooy jàmbaar de waaye jàmbaar dëgg daal mooy ki nga xam ne damm na ab gisam ci lépp loo xam ne suñu boroom subhanahu wa taala daf ko araamal tànkam ci lépp loo xam ne aw ñaawteef la wala lépp loo xam ne ay bàkkaar la sëriñ bi radiyallahu anhu nee na kooku buñ dee wax jàmbaar kooku mooy jàmbaar dëgg-dëgg kooku mooy ki nga xam ne moo di jàmbaar euh, muy waxaat ba tey ci nahju ne wa in absarat aynaka ayban fa qul laha fala tabsuri ya aynu ayunu nee na saa boo xamee ne sa ñaari bët yi day xool na ayibi jàmbur na nga gëmm ñaari bët te wax ko ne ko yow ñaari bët yi ndax danga ngaa xamul ne nit ñi ni nga amee ay bët di mën a xool seeni ayib noonu lañ amee ay bët ñoom tamit di mën a xool samay ayib kon ñaari bët yooyu na leen gëmmu te bul xoo bu ci xool mukk li nga xam ne moo di ayib jàmbur ndax nit ki ay ayibam rek daf ko war a doy sëkk saa bu la say ayib doyee di nga euh, tal leneen lu dul euh, di toppatoo ayib jàmbur walla ngay Euh, gëstu ayibi jàmbur ngir man ko caa xeeb wala nga nga ko cay euh, gàkkal moo tax bi di waxaat ba tey ne xat xuli xat bind nañ leen ñoom ñaari bët yooyu làkka ñeel la li kay tax tadiyaa ngir nga gindikoo ci euh, biha ngir nga gindikoo biha ci ñaari bët yooyu fii zulmatin ci ak lëndëm fala tastaadiyaa kon bul jalgati sëriñ bi radiyallahu anhu nee na ñaari bët yooyu de li tax suñu borom bi subhaanahu wa taala bindal la ko du dara lu ngir nga gindikoo ci ñoom du dara lu ngir foo xam ne euh, loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf koy araamal nga fexey bañ caa tàbbi kon zulma gi foofu mooy ngay xool li nga xam ne moom la yàlla bëgg ñu koy xool euh, waaye lépp loo xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala araamal te ne la bul ko xool ci say bët nga def ko mu di ak lëndëm nga bañ ko nga bañ koo xool nee kon sagam ngir nga gindikoo ci moo tax suñu borom subhanahu wa taala bindal la bët yooyu nee na kon na nga ci gindikoo waaye bul ci tàbbi mukk ci ay bàkkaar kon jalgati ga mooy lan mooy li nga xam ne moo tax suñu borom bi subhanahu wa taala bind ko nga bàyyi ko fa dem di ca mooy suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne wastaan na nga dimbali ko biha ci ñoom gët yooye bil xawaaiji ci say aajo fala tanzur bul xool biha ci gët yooye nazrata aasin xoolub aji mooy xafala kook sàggan na ne na kon li fi ne daal euh, bët yooyu na nga ci dimbalikoo ngir faj say aajo na nga ci dimbandikoo ngir faj say aajo waaye bul ci dimbandikoo di mooy yàlla mooy koo xam ne aji sàggan dëgg la ndax aji sàggan mooy fekk li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye ne bu leen ko xool moom mu ca yóbbu boppam di ko xool ba yóbbe ci ay boppam ay bàkkaar waaye yóbbe ca boppam ay mooy yàlla yu màgga a màgg a yu tara tara tar kon nit ki euh, euh, mën naa jëfandikoo bëtam yooyu ci loo xam ne lu yàlla gërëm la mu man cee am tuyaaba lu ki mel ni jàng alquran waaye mën na cee jëfandikoo lu mel ni lu ñu sopp lu ko mel ni bëgg dem fenn bëtam yooyu wommat ko ba yóbbu ko foofa loola lépp ay njariñ la yoo xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo ci xéewal boobu nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala defal te mooy ay gët waaye nag waru koo dimbandikoo di ci moy suñu borom bi subhanahu wa ndax yàlla moo araamal ak moy moo tax mu ne wanzur na nga xool bihaa ci ñoom gët yooyee ilaa ajaibil xadiri jëm ci euh, euh, kaawteefi aji euh, attan ji mooy aji am kattan ji ka kulli shay'in ni ki lépp lu mën a ne jadirun aji yëg la bit tafakkuri ci xalaat aji yay la bit tafakkuri ci xalaat ne na kon bët yooyu li nga ci war a def mooy lépp loo xam ne lu yéeme la loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf koo bind nga ci xool di ci xelaat euh, ngir loolu gën laa dolli tawxiid waaye ngir loolu gën laa dolli ak yàlla waaye loolu gën laa dolli euh, euh, nga gën a xam màggug suñu borom bi subhanahu wa taala lu ki mel ni lan lu ki mel di xool asamaan si ni ko suñu borom bi subhanahu wa bindee binde nga xam ne amul benn keno boo xam ne moo ko téye te amut fenn foo xam ne fa la jàpp te taxut mu wàcc ci kaw àdduna euh, bi ngay xool li nga xam ne moom mooy suuf si ni ko suñu borom subhanahu wa taala tàllale nga gis ne amul lenn loo xam ne moo koy moo koy téye moom suuf si waaye suñu borom subhanahu wa taala tàllal na ko euh, tàggatal ñu ko ñu man cee dund ci kaw suuf si yu mel noonu nga gis li nga xam ne mooy euh, njaay àll yi ni leen suñu borom subhanahu wa taala binde nga gis nit ñi ni leen yàlla binde ni ñu wuutee ñii xees ñii ñuul ñii rafet ñii ñaaw ñii gàtt ñii jool yu mel noonu nga koy xool di ci xelaat naka laa ci mën a gën a dollee sama ngëm yàlla naka laa ci gën a mën a dollee sama tawxiid naka laa ci mën a gën a wéetale suñu borom subhanahu wa taala loolu mooy li nga xam ne mooy njariñul ñaari bët kon nit ki daf cee war a dimbandiku di xool li suñu borom bi subhanahu wa taala bind waaye ngir man cee jaare di xam màgguk suñu borom bi subhanahu wa taala di jëfandikoo li nga xam ne moom la yonent bi wax ne tafakkaru fi ala illahi wala tafakkaru fi llah innahu la tuhitu bihi lfikra euh, dee xalaat ci euh, li nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala bind waaye bu leen xelaat ci yàlla ndax yàlla kenn mënta xelaat ci moom kon nit ki bu xelaatee ci li nga xam ne moo moo ko wër loolu rek mën naa yokk ak ngëm yàllaam waaye loolu rek mën naa gën a dëgëral bu baax a baax ak ngëm yàllaam waaye nag xelaat ci jëmmi yàlla ji moom loolu nit euh, waru koo def ndax jëmmi yàlla ji dafa ëpp xelaatu doomu aadama nit waru cee xelaat kon li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bind sa bët yi di ci teg di ci tegu euh, saay soo xëyee loolu rek boo ci dee xalaat di nga xam ne ki def li mooy aji màgg ji te mooy ki nga xam ne moom kese moo am kattan kon lu mel noonu mooy li nga xam ne mooy njariñul ay gët euh, nit ki daf ko war a jëfandikoo di ci topp suñu borom subhanahu wa di ci def ay euh, ndigalam waaye di ci moytandiku bu baax a baax di ci mooy yàlla ak yi nga xam ne ñoo ko mën a yóbbe ci ak mooy yépp li ki mel ni lu ñu euh, sib wala yoo xam ne dañ ko araamal ti faaxan kon loolu la ñu andi woon ci bunt boobu di tuub bu baax te jéggulu lu ci dëng ñu xam ne ci euh, aji euh, aji euh, xeebu ji ko doon taxawe la waaye lu ci jub ñu sant ko suñu borom subhanahu wa taala in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati ala saxaabati wassaadaati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati